Sall wax la ci sa dund loo mosul gis wala loo mosul dégg waaye tamit nee na ma dina def noob wàllu noob moom yàlla may na ko ci vingt quatre heures maanaam benn bis képp mu jox la résultat yu leer waaye nee na am na cangatug njara cangatug njara googee nee na ku mu jëflanteeg ba noppi rek di nga ci am lu kawe sa njortu waaye nee na de am na ndombo goo xam ne ndombog njare la ñu koy wax ndombo googu nag nee na képp ku ko am dina la aar ba noppi ubbi say xéewal nee na yàlla tamit may na ko ci wàllu ñaan nee na wàllu ñaan dina ci yëngu rawatina wàllu kayit képp koo xamante ni am nga ci ay jafe-jafe dina la ñaanal ba noppi samp la nee na tamit am na cangatug rab goo xam ne bis bu leen yàlla boolee vingt-quatre heures maanaam benn bis képp di nga gis ay coppite ci sa bopp waaye butéel yi ngeen di gis moom la tuddee gaynde gu góor gi bii nag sunu mbokk góor ñi néew kattan la ko jagleel nee na képp ku ko jëfandikoo di nga daw ñëw waa waaye nee na feebar yi yëpp yàlla may na ko ci muy ndoxum siti hémorroïde jabet ak yeneen feebar yi nga xam ne sonnal nañu askan wi képp ku ko bëgg a gis nag ma nga ca cité Aline Sow waaye képp ku bëgg a jokkoo ak moom it numéro yaa ngi noonu ngeen di gis muy 78 475 27 82 ma baamtu ko 78 475 27 82 loolu la ñu mën a jotee Serigne Cheikh Ndiaye Njare nekk Serigne Lasrar bu yàlla baaxal. ñu door xibaar yi dooree ko ci équipe nationale bu Sénégal équipe nationale bi nag mën naa jàkkaarloo ak bu Brésil mu soxal match amicale fan yële weesu record le ne ko record nag mi ngi ci biir réew mi tey jii nag ki xamle xibaar boobu moo di Golobo Golobo nag ma nga ci réewu Brésil nee na ñaari fédération yi ñoo ngi waxtaan ngir amal match amicale waaye équipe nationale bu Brésil nag yemul képp ci ne Sénégal bëgg football ak ndax bëgg naa football tamit ak Guinée bu dee match Sénégal bi moom li ñu bëgg moo di su fekkee lépp yemb na ñu ko ca Barcelone bu dee match biñ bëgg a jàkkaarloo ak Guinée moom su fekkee lépp yemb na ñu yóbbu ko ca Portugal dëkk bu ñuy wax Lisbonne kon jamono ji waxtaan am na ci diggante fédération bu Sénégal ak bu Brésil ngir ñu amal match amical ñu jugee ci équipe nationale bu Sénégal jël doomu Sénégal bi di pap Ousmane Sakho moom nag ma ngay football ca Simba SC doomu Sénégal bi nag club ba mu nekk tey jii dañ doon amal match mu soxaloon championnat vingt-huitième journée maanaam ñaar fukk ak juróom-ñetteelu bëccëg Rufisque lañ doon jàkkaarlool dur ko ñetti bal ci dara doomu Sénégal bi nag départu titulaire waaye dañ koo dugal mu dugal ñaari bit bi muy dugg nag club ba moo mëne woon benn bal ci dara waaye bi mu duggee ñaari bit la dugal bit yooyee mu dugal nag baax na lool ci moom te mën naa tax mu am temps de jeu ca club boobee ndax moom li muy football néew na lool te li mu bëgg moo di am temps de jeu bu doy muy pap Ousmane Sakho kon nañu ko ñaanal mu wéyal ca jaloore jooje ñu jugee ci Pape Ousmane Sakho ak jalooreem jël doomu Sénégal bi di Kalidou Koulibaly mi nga xam ne gëj ngeen koo gis mu dugg ci terrain football li ko waraloon moo di ab blessure clubam di Chelsea bi ñuy jàkkaarloo ak Real de Madrid ca match aller ba ci la amoon blessure booba léegi nag footballut jamono ji nag wér na tey jii entraînement bi clubam doon amal bokk na ca ba mu jeex suba nag Nottingham Forest la ñu war a jàkkaarlool match boobee 14 heures lay door doomu Sénégal bi noppi na ci Lampard di képp lay aju mu football ko wala mu teg ko ci banc bi. ñu jugee ci Kalidou Koulibaly ak xibaaram bu neex dem ca équipe national bu Maroc xibaar bii nag Al Arabi nekk ci réewu Maroc moo ko le nee na Walid Regragui mi nga xam ne mooy tàggat équipe national ba jubóo na ak ñaar ñii ngir ñu ñëw jàppale ko ca liggéey ba muy Amin Adli nekk ca Bayer Leverkusen gone gi attaquant bu mën la muy def la noppi na ngir football ci équipe nationale bu Maroc keneen ki moo di Brahim Diaz nekk ca AC Milan moom it gone gu mën la muy def la ñoom ñaar jox nañu seen kàddu walit rag-ragi mi nga xam ne mooy tàggat équipe nationale bu Maroc xibaar boobu Al Arabi nekk ca réewu Maroc moo ko xamle ñu jugee ci équipe nationale bu Maroc jël doomu Belgique bii di Witsel moom nag ma ngay football ca Atlético de Madrid li mu xamle tey jii nag moo di tekki na ay godaasam ca équipe nationale bu Belgique moom nag nekkagul mag yooyu sax ndax trente-quatre ans képp la am waaye nee na bàyyi na ca équipe nationale bu Belgique fa football ci ay match nag mi ngi toll ci sakaat téeméer ak fanweeri match la football ci réewam di Belgique li mu fa dugal ci ay bit toll na ci douze fukk ak ñaar waaye nee na nag carrière international fii la ko bëgg a yemale muy Witsel nekk doomu Belgique di football ca Atlético de Madrid ab milieu de terrain la. ñu jugee ci Witsel ak i tànneefam jël doomu Italie bi di ci di football ci Juve keroog nag këlëbam dañ doon jàkkaarloo ak Séville mu soxaloon match aller Ligue Europa demi-finale la woon match boobee nag doomu Italie bi def ca jëlee ak blessure blessure boobee nag këlëbam def nañu ca communiqué tey jii nee nañu lu mu gàtt-gàtt doomu itali bi dina toog fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan maanaam quinze ba vingt jours du dugg ci terrain football kon moom match retour bi du ca mën a bokk muy bunu ci ci fàttali nag match aller ba 1-1 la woon retour bi Séville moo koy dalal ñu jugee ci bunu ci ak xibaaram bu naqari jël doomu Portugal bii di Rafael Leao moom nag ki koy tàggat di Pioli indi na ay xabaar ci moom nee na doomu Portugal bi mi ngi yëg tan bu baax te mën naa am nag mu bokk ci match retour bi nga xam ne Inter la ñu ca war a jàkkaarlool mu soxal Ligue des champions xibaar boobu tey jii la ko xamle bi mu jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi di waajal match bi mu am suba spécial la ñuy jàkkaarlool match boobee nag Raphaël Leao du ca bokk waaye bu ñuy jàkkaarloo ak Inter mën naa am mu bokk ca ndax ma nga yëg tan bu baax Pioli mi tàggat AC Milan moo xamle xibaar boobu ñu jugee ci waa AC Milan dem ca waa Brighton ñoom nag mercato bi ubbeegul waaye jamono jii nag ñoo ngi def seen mercato doomu Allemagne bii di Mahmoud Daoud nekk ci Borussia mun jege na lool ngir xaatim contrat ca Brighton gone gi nag contrat bi ko lëkkale ak Borussia mun saison bi ñu nekk bu jeexee day jeex tàkk waaye daanaka juboo na ak waa Brighton ngir dem fa gratuit Fabrizio Romano moo xamle xibaar boobu loolu nag su yembee mii di mu Daoud mooy don ñetteelu jour boo xam ne dem na foofee ca Brighton te mercato bi ubbeegul ndax bu yàggul dara la ñu xaatimal contrat doomu Brésil bi nekkoon ca Watford tout tudd wo Pedro te xam ngeen ne James Milner ma nekk ci Liverpool juboo na ak waa club boobee ngir dem fa su fekkee mu Dawood nag jubo na ak waa Brighton mooy nekk seen ñetteelu jour te merkato bi ubbeegul xibaar boobu Fabrizio Romano moo ko le ñu jugee ci waa Brighton jël doomu France bii di Raphaël Varane moom nag gëj ngeen ko gis mu football ak clubam di Manchester United li ko waraloon moo di ab blessure ki koy tàggat ca club boobe nag